Machallah, machallah. La charmante Réma. Quelle belle surprise. Ouais. Avec vieux. <laughs> avec Réma qui va nous interpréter Malaika et chanté par Komagano aussi. <laughs> Um ah, vraiment mënul ñàkk nga wax. mënul ñàkk mënul ñàkk ah mënul ñàkk ñëw fi vraiment mais et à la bise

siri mu ndaw xamul yaayam siri mu ndaw xamul yaayam macha Bravo, elle est Bravo. magnifique hein. Ouais, vraiment. Elle est vraiment. Elle est magnifique. Machallah, machallah, machallah. Il a la puissance mm-hmm. au niveau du ventre hein. Mm-hmm. Comme sa marraine bi hein. Parce mhm. que exactement c'est <laughs> ça que j'ai vu dans le début. Oui, la première fois qu'on l'a bégayé. Machallah. Et je m'en réjouis parce que j'ai j'ai eu à encadrer, à encadrer beaucoup de chanteuses. Machallah. Hein, machallah, mais vraiment yow nekk nga si. Euh, si jàppale bi merci beaucoup je te félicite beaucoup et je t'encourage beaucoup. merci merci. Kumba nag vraiment euh, vieux merci. ayca merci vieux merci encore. Kumba lu ma jaral bari. waaw wane nga ko tey wane nga ko tey de. waaw wane nga ko tey de jërëjëf. mais quand j'ai entendu qu'il avait une extinction de voix. Mm-hmm. non sérieux c'est-à-dire que dafa mel ni maçon bi nga xam ne euh, amatul. ndeysaan ndeysaan dafa mel ni docteur bu amatul. ki euh, stéthoscope. Mhm. Écoute, euh, moi j'ai eu un euh, pincement au cœur. Je Et je suis que tous les gens appelé, qui t'aiment ouais. ont, eu, ont, eu, le même truc Et quand j'ai appris qu'Affaire Bang Donk, parce qu'on te suivait de près, hein, mm -hmm. qu'Affaire a mon amélioration, mm -hmm. écoute, quand tu m'as appelé pour me dire que tu allais venir faire un truc, je me suis dit, écoute, jërëjëf parce que c'est Kumba. jërëjëf jërëjëf en plus tu t'es mise au piano. Ouais. Ouais. non mais non mais non. xam nga artiste c'est du lourd. ah oui oui parce que ah artiste. xam nga encore une fois c'est pas seulement la voix c'est l'instrument mhm. instrument boobu nag moom na mhm. ngay jël léegi écoute ah il faut y aller ah c'est comme ça c'est comme ça voilà bijou maa ngi lay maa ngi lay remercier bijou <laughs> c'est un vrai bijou un vrai bijou maa moom dañuy confronté ji merci beaucoup et merci beaucoup mhm. et bonne continuation merci vraiment c'est impression euh, euh, rapidement euh, ñu ngi remercier ñi nga xamante ne ñu ngi toog yëpp duñu seetaan artistes yëpp kenn ku ci nekk yaa ngi message Abouraas ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ah euh, euh, tout le monde ah Talla tout le monde wax dëgg yàlla su ma limee rek damay daal di jum mais ñëpp ngi ci di Fanta Fifi Kanté ah Djibi Dramé tout le monde ah waaw maa ngi ñëwaat gars ñëpp ci yéen parce que lii yëpp bu ma ko naree liir wax dëgg yàlla day xaw a day xaw a métti 956 commentaires day xaw a métti donc maa ngi ñëw ayca waaw déjà salaamaaleykum à toi Bijou salaamaaleykum suñu tata Kumba di wax ne c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là euh, c'est une personne que j'ai toujours admirée euh, à travers sa musique mais à travers sa propre personne mm-hmm. parce que li may faral di wax rek ku gëm boppam la te ñun ay ndaw lañ wax bu ñuy tànk te sot te te feesalaguñu du ñu tala tànk bay sotti bu ñu root te feesalaguñu taluñu tànk bay sotti donc moom gëm naa ne ndaal boo xam ne ne dañuy tànk ci moom ba tey la donc c'est une personne boo xam ne ne elle a su prôner le leadership féminin man mis à part la musique je fais je suis étudiante en génie civil donc ma gis parcours am ci étude gis parcours am ci nekk leader nekk ambassadrice elle a su porter le drapeau sénégalais partout dans le monde donc c'est une personne que je que j'admire di ko ñaanal gudd fan ak wér incha allah mu mu am mbégte en contentement nag moom lim ñu apporter gëm naa ne ba fii bëf ti bay ëf duñu ko duñ ko mën a incha allah tu sens la différence waaw tu tu la différence waaw bien sûr bien sûr voilà donc c'est très important euh, euh, c'est très important euh, di def sa hobby en même temps di continuer li nga xamante ne moom mooy sa étude donc c'est la base. ah là, là je vais ah, l'inviter je comme ni mu ko waxee tout à l'heure dañoo soxla ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw structuration euh, a nekk ci informel bi. si euh, xam exactement li nga xam ne ba ñu doon artiste YouTube comme elle a dit. surtout uh-huh. donc ñun on a <laughs> besoin de ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu. xam nga li ñuy wax rek ku la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax fi ngay toogee mhm. ñoom ñoo ñu jiitu mhm. nañ ñu ndàllal loxo mhm. nañ ñu wan yoon bi fii lañ war a teg suñu tànk incha allah te dañ koy topp te gëm naa ne buñ ko toppee duñ ci euh, ñu koy ñaanal moom tamit baat bi wér ah euh, wax dëgg yàlla euh, bokk na ci talent yi nga xamante ne et j'ai pas encore ah. ndax damay woo ki nga xamante ne moom le treize il faut ko ci scène ah, bi moom moom mënul ñàkk waaw ah, le treize vraiment yow mënul ñàkk nga ñëw Ah euh, ci nga xamante ni mooy sur la scène ah, avec la diva donc euh, toll nga foofu donc ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax ak ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñëpp jàll nañ fi ah mm-hmm. parce que le 13 nee naa la guddi la goo xamante ne euh, guddi goo xam ne waa Sénégal yëpp koy waaj la et que y a plein plein plein de surprises yoo xamante ne dinañ leen ko defal incha allah parce que nee naa la c'est le comeback ah de la diva ah Aïcha ayca <laughs> merci beaucoup Réma euh, dama lay libéré rek nga daal di joxaale lu micro bi foofu parce que foofu laa bëgg mu tàmbali ñëw foofu noonu moom <laughs> euh, euh, ani Cheikhou ah Cheikhou ani Cheikhou vieux merci beaucoup joxal ma li nga xamante ne moom mooy